ku ñu gis Macky Sall mu expliqué la lan lan moo tax mu yóbbu leen prison. Mhm. voilà. d'accord ñu ñëw euh, si euh, def amal euh, quelques observations maanaam quelques jàngat. Mhm. jëmee si plan Sénégal 2050 ak perception bi nga xamante ne sénégalais wala yenn si sénégalais yi am nañ ko. Safiatou je pense que la première remarque bi ñu bi ñu war a def. Mhm. mooy dafa am des mots des vocables yoo xam ne souvent dafay déterminer. perception bi nit ñi am par rapport à l'actualité de, de leur pays mm-hmm. est-ce que dégg nañ wala dégguñu mm-hmm. est-ce que li ñu dégg ñu ngi koy adopté wala déet mm-hmm. dama lay jox ñaari exemple yu simple ñaari com une comparaison entre deux cas pour nga xam lan laa bëgg a wax bi Macky Sall di yor pouvoiru Sénégal bi mu nekk président de la République bi ñu demee ba les derniers mois de son mandat wala les dernières années en tout cas de mars jusqu'en su ma ne la jargon bu ñu doon gën a utiliser fan lañ ko puiser juridique juridique merci te li wax nii waxtaan nañu ci mën ak yow on n'en a pas parlé wala fan lañ doon puiser jargon bi ñu doon gën a utiliser nga dem juridique les sénégalais lañ doon lan moo doon baat yi nga xam ne moom lañ demoon ba miin ko ba ñi jàng ak ñi jàngul ñëpp xam ko mooy lan garde à vue mandat de dépôt mandat retour de parquet procureur de la république procureur général juge d'instruction contumace contumax contumax exactement yooyu la Sénégal Sénégal dem nañ ba xam ne luy contumace xam nañ luy contumax xam nañ juge d'instruction lu mu tudd muy du Seck à l'époque lan lay liggéey procureur lan lan lan lañ ko sant ak les substituts. les substituts. Mhm. Euh, xam nañ sax nombre substituts yi. Mhm. xam nañ euh, lan mooy mandat de dépôt. Mhm. xam nañ lan mooy retour de parquet. xam nañ lan mooy garde à vue. sénégalais yi loolu lañ doon waxtaane ba loolu d'ailleurs cette cette judiciarisation du conflit politique. judiciarisation du conflit politique. mooy lépp lu waay di joteeg sa moroom ci wàllu politique. au lieu que ñu àtte ko ci politique ñu dem àtte ko ci yoon. loolu moo demoon ba les sénégalais seen bopp dem ba adopter ce jargon xam ko ñoom ñëpp. ñoom ñëpp et d' soo seetloo d' ailleurs y' beaucoup euh, de de de de duma leen wooy journaliste mais beaucoup de gens des média qui soo nés avec ça. bu njëkk yooyu ay daaw de mine la intéressé woon. ay Pape Ndiaye bu Walfadjri Pape Ndiaye bu Le Témoin d' autres journalistes Fat Si bu bu Le Soleil qui étaient fréquents au tribunal. Mhm. ces journalistes la la yoo ñoom ñoo xamoon yooyu mais dem na ba. man yow keneen journaliste boo dégg yooyu lay waxtaane pourquoi parce que loolu la Macky Sall doon gouverner Sénégal léegi depuis Bassirou Diomaye Faye nekk président de la République mm-hmm. mais surtout depuis que Ousmane Sonko def sa sortie sur euh, la falsification des chiffres de l'économie sénégalaise safir mm-hmm. seetlu woon leen sénégalais mm-hmm. seen waxtaan léegi xam nga lan la dette endettement surendettement taux de croissance PIB vision projet plan budget agriculture pêche pour de développement. Mhm. yooyu mooy moo yi ngay njëkk gën a dégg si média yi. Mhm. et loolu Sénégal dañu commencé di miin di waxtaane yooyu. Mhm. mooy di waxtaane économie. te en réalité loo ci mën ci dégg yi may wax ni économie. ñoom ñooy yóbbu réew kanam. et man dama jàpp ne c'est une excellente chose. que le débat di glisser jóge ci. la judiciarisation des conflits politiques di dem ci des thèmes économiques nit ñi di waxtaane mbay di waxtaane pêche di waxtaane développement loolu dañ kaa war a miin miinal ko suñu bopp moom moo tax ma jàpp ne la première chose bi ñu war a reconnaître mooy tey la perception bi Sénégalais yi amoon ci luy ay plan de développement ak yooyu yaakaar ne c'est des choses qui viennent de la planète Mars mm-hmm. yaa amoo droit wax ci man awma droit wax ci baykat bi du ci wax mécanicien bi di wax tey nekk na débat wu Sénégalais yi. et c' est intéressant démb dañu envoyé benn audio benn waaye bu demoon euh, Sandaga la di waxtaan ak euh, ay commerçant yu miin quoi di waxtaan ñu di ko wax ci affaire li Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko doon wax jam ñaajo mm-hmm. d' accord dañ ceeg d' accord ñu ceeg affaire ma ne c' une excellente chose que les Sénégalais commencent à parler de ça mm-hmm. parce que loo ci mënti dégg euh, ay safeeru mm-hmm. économie bii ñuy wax moom la Sénégalais yëpp di ànd xeex ko développer réew mi suñu ko deful ci naax saay la ñuy dëkk. d'accord mu nekkoon euh, euh, jàngat bi nga xamante ne wala perception bi nga xamante ne euh, sénégalais yi am nañ ko jëmee ci plan mhm. Sénégal 2050 boobee alors ci plan boobu la ñuy des. Mhm. Moustapha alors plan boobu est-ce que tey jii mën nañ ne dañuy dañuy xaarloo ñu xaar ba fi ak 2050 ñu soog ko réaliser wala naka lay demee. kon de 2050 yow dina fekk nga màgget yow. Mhm. ami sët. mais li ma bëgg a wax mooy. ñiy wax loolu am na yaa a deux groupes. Mhm. dafa am benn groupe boo xam ne man dama jàpp ne y une petite wala une grande dose. Mhm. de mauvaise fois ci li nekk di wax. Mhm. parce que mënoo juddoo ci réew mi di fi yeewoo tous les jours am ay nopp am ay bët. di déglu nit ñi ñuy wax di déglu ñu ko jiite ñuy wax. ñu teg un plan tudde ko vision Sénégal 2050 yow nga déglu li ñu wax démb yëpp li ñu wax démb yëpp le premier ministre wax ko le ministre du plan wax ko ñoom ñëpp ñu expliqué wu président de la République lui-même yow nga toog ne gars yi dañuy xaarloo ba 2050 léegi mais loolu ça veut dire le dire pour certains hommes politiques pour certains intellectuels je pense simplement que c'est de la mauvaise fois parce que ñi nga xam ne ñoo teg ce plan là man li ma dégg ñu wax ko parce que maa ngi ñëpp ceeb dama dégg ñu ñu dégg. Mm-hmm. li ma dégg ñu wax ko mooy dañu teg un plan bu yóbbu Sénégal sur vingt cinq ans. Mm-hmm. te vingt cinq ans c' est pas beaucoup ah deux mille cinquante c' est bientôt yàlla nañu jàmm. Mm-hmm. vingt cinq ans ba pare dañ ko phasé sur cinq ans sur dix ans et cetera et bu ci nekk am na lu ñu ci war a def. ngay nga xam ne Bassirou Diomaye Faye il a été élu pour faire un travail sur cinq ans et que en dañuy demaat élection les Sénégalais vont le juger su fekkee day nekkaat candidat Euh, sur ce qu'il a fait pendant ces cinq sur ans là réalisation mhm. ba pare nga naan noo daf ñuy xaar la ba 2050 mhm. mais loolu c' est un peu avoir de la euh, mauvaise foi voilà dégg seen réaction moom moo tax ma posé question bi nu nu mel c' est c' cest dama bëgg ñu ñu ñu comprendre ñaar ñu koy wax dafa am deux ki yu jàng. xam ko xam li ñuy wax. xam bu baax ce que ça fii ce plan Sénégal vision deux mille cinquante wala vision Sénégal deux mille xam nañ ko bu baax. mais y' un peu de la mauvaise foi ci li nekk di wax c' est des gens qui font de la politique. muy benn beneen bi mu am un deuxième group boo xam ne ñoom dañu am un défaut de compréhension. mooy ñoom ñi ngi dégg ñuy wax. ñi ngi seetaan mais comprendre ñu ce que le pouvoir veut faire wala ce que le pouvoir veut dire loolu du seen responsabilité. responsabilité au pouvoir bi la parce que il appartient au pouvoir et notamment à ses communicants de dire aux Sénégalais clairement pourquoi une vision Sénégal 2050 lan lañ ci dégg ci loolu et ñu ci dégg nan lañ koy appliquer loolu c'est c'est le devoir travail de communication parce que y a l'aspect économie planification et tout mais y a l'aspect communication ki est extrêmement important parce que moom mooy permettre au Sénégalais ñu adopter li nga xam ne moom lañ leen di proposer wala ñu adhérer ci wala ñu approprier woo te loolu sa appartient au gouvernement de le faire moo tax sax man ma yaakaar parce que démb rek maa ngi ci waxtaan ak sama benn professeur d'ailleurs mu ne ma même l'appellation Sénégal 2050 mënoon nañ trouver mieux parce que quand tu quand tu dis appellation quand tu dis Sénégal am ñoo xam ne dañ koy def benn horizon ne il faut comme ni ko Ousmane état 10 étages ñu demandé il ñu tabax benn tabaxaat beneen tabaxaat ba àgg ci 10 mais duñ tëb rek dem 10 et ce qui est raisonnable wala déet mais am na ñoo xam ne dañ ciy dégg ne non non kër gi moom kenn mënu fee dëkk dañuy taxaw di xaar ba dix étages yëpp mat ñuy soog exactement moo tax am na ñu jàpp ne ci li may wax ni ay communicants wala sociologue ñu jàpp ne l' appellation 2050 mën nañ ko di tudde ko vision pour une Sénégal pour un Sénégal prospère ou des choses comme ça ba na joxe benn deadline mhm. mais qu'à cela ne tienne l'appeler comme ça pour man c'est pas une mauvaise chose le plus important mooy simplement il faut une bonne communication pour que les Sénégalais comprennent que ni c'est un plan qui sera déroulé au fur et à mesure des mhm. ans chaque année wala chaque mandat am na lu ci war a am mhm. te li am solo mooy li tax communication baax man dama jàpp ne naa ci ñëwaat léegi mais dañu dama jàpp dañu ci war a Sénégal yëpp dañ dañ ko dañ ko war a adopté. Mhm. adhéré su fekkee ne mooy li gën. Mhm. parce que li gën ñi ko jàng ñoo koy xam di ko wax. li tax ma koy wax mooy euh, dafa am benn sénégalais euh, professeur Ba il enseignait à Bordeaux. Mhm. dafa ma sa wax benn dafa ma ma sa woon benn affaire mu ne ma Alain Juppé bi mu nekkee le maire de Bordeaux. Alain Juppé dafa réunir les Bordelais. la classe politique les listeurs et tout le monde mooy leen dama bëgg a teg un plan qui s'appelle plan Bordeaux 2040 comme ni ngay dégg Sénégal 2050 mhm. Bordeaux 2040 mhm. mu ne ce plan là dafay bëgg def nan la Bordeaux war a mel en 2040 mm-hmm. xam nga Alain Juppé leer na ko ne moom 2040 du ko fekk muy nekk maire mm-hmm. Mm-hmm. mais am na idée pour xam Bordeaux nan la war a mel en mu ne dañuy def un plan boo xam ne ñun ñëpp dañ ciy adhéré su ëllëgee même si le le maire change keneen ñëw remplacé ma y aura ce qu'on changement des à la marge mooy maanaam lii dañ ko prévoir mais jamono dépassé na ko nañ ko soppi def ko leneen fii kër dañ fi prévoir oon jaarle benn tali mais jamono soppeeku na nañ fa def saxa autorail euh, wala leneen ak leneen yooyu moo tax ma yaakaar ne il faut une bonne communication pour que cette affaire là su fekkee ne mooy li gën Sénégal que les Sénégalais mm-hmm. parce que pouvoir bi yàlla moo xam kañ lay jeex. man mhm. na am deux cinquante fekk ko fi mën na am du ko fekk yàlla rek moo xam. d' yaa ngi wax sànq qu'il qu'il faut une euh, bonne communication bien il faudrait une bonne communication. Mhm. Euh, mais euh, communication boobu noonu bokk na si ci fësal pertinence plan.